ñuy jàll ci euh, gëm-gëm ak euh, Marianne euh, Siva tey dañuy àggali série gëstu yu ñu tàmbali fan yële jëm ci jigéen yu yiw yi nga xam ni ñoom meññ wàllu yu Marianne. waaw ni nga ko waxee noonu la Pape soxna si nga xam ne moom la ñuy njëkk waxtaanee mu ngi tudd soxna Fatoumata Wade Wele. dañuy hmm. faral di wax maam Wade maam fa Wade Wele mais turam dëgg mooy soxna Fatoumata Wade Wele. moom mu ngi gane àdduna 1802 dëkk bu ñuy wax Gaaya. Hmm. way juróom jigéen mu ngi tudd soxna. soxna Botte Faye euh, way juróom bu góor mu ngi tudd soxna Abdour Serigne Abdourahmane euh, Wele euh, ñu daan ko woowee Daraman looloo indi Bakare Daraman waaw noonu lañ daan dàkkantale woy juróom bu góor muy Serigne Abdourahmane Wele soxna si nag nekkoon koo xamante ne ku baax ku yiw moom laataa muy am Sidi Hadj dafa jotoon am ñaari sëy léegi si ñaari sëy yooyu mu am ci ku ñu naan soxna Fanta Ñang ak sëriñ Abdou Boli Fall Abdou Boli Fall mooy maamu Njaga mi nekk fii voilà mu am si waaw moom waaw léegi moom moom euh, soxna Fawade Wele euh, mu nekkoon ndeyu daara ndax bi mu jugee si ñaari sëy yooyu dafa doon dem euh, ci daara ku ñuy wax El Hadj Malick Sow bu fa nekkee day dem bu xëyee day jóge këram dem ci daara jooju mu demee ci daara ja fekk fa ndongo yi daal di jël seen ay yére bu tilimee mu fóot ko di leen jox ñuy lekk di leen di leen fóotal di leen defal lépp luy xeetu teraanga nekk seen yaayu daara léegi ngir nga ngir ñu mën a ñëw ci histoire soxna soos dëgg-dëgg Pape faw ñu tudd euh, El Hadj Omar Foutiyou Tall mhm. ndax moom mën nañ ni tey jii li am ci dund soxna si yëpp daanaka El Hadj Omar moo nekk koo xamante ne daf ko daf ko prédiroon ndax euh, bi mu jugee Màkka ba waññeeku dafa dal dëkk bu ñuy wax Oréfondé bi mu daree Oréfondé boobu boobu woon na euh, di xeex di di di di ñoŋal lislaam daa mu am ay jàmmaarloo tuuti ak ñi nga xamante ne ñoo ji tubaab yi léegi bi mu dalee Oréfondé nag léegi gars yi comme sorewul Oréfondé dëkk yi nekkoon ci euh, Oréfondé yëpp dañ doon ñëw di ko indil ay teraanga di ko jàppale ñii di indi ay basang ñii di indi lu nekk léegi nag waa Oréfondé bi nga xamante ne ñoom dañuy dem pour yóbbul euh, El Hadj Omar Foutiyou Tall seen ay teraanga ak yi nga xam ni moom lañu koy moom lañu koy dimbalee dafa amoon euh, benn groupe nit boo xamante ne ñoom ñoo demoon pour yóbbu teraanga yooyu ki ci njëkk di di loo keneen ki di Babacar Sarr Malamine sàmb yàq Moussa Dieye Samba Yaali Niass ak Alpha Mayoro mi nga xamante ne mooy euh, frère euh, Mame Fawade Wele bi ñu demee yóbbu teraanga yi euh, ñu ñëw fekk El Hadj Omar Foutiyu Taal nekk xëluwa léegi nag ñoom ñu bëggoon ko gis ñu fekk fa bëkk néeg ba ñu ñu ne si ñun yi ñu yore nii bagage yi ñu yore est-ce que du ñu am lu ñu sàkk jox bëkk néeg bi ngir suñu gisee Cheikh Omar mën a gaaw hmm. léegi nag bi ñuy dem ñoom soxna Fawade Wele dafa woowoon freeram bi nga xam ne moo di Alpha Mayoro ne ko fi ngeen di dem ci kilifa boobu yëkkati ay sëru dënkam ne ko boo demee nga joxal ma ko sëriñ bi àddiya ne ko man maa ko man maa ko jox lii nee ko na ma ñaanal. léegi bi ñu demee ci ñu doon neexalee bëkk néeg bi euh, daf ci bokkoon sër yi nga xamante ne moom la maam Fawade Wele joxe woon léegi. El Hadj Omar bi mu génnee euh, ci groupe boobu yëpp ànd ki mu si njàll ki mu si laajte mooy ki nga xam ne moo gën a tuuti muy Alpha Mayoro dafa génn rek ni ana Alpha ñu wax ko mu ñëw wuy si mu ne ko ana yóbbante bi la soxna si jox ñu xool xool ci bagage yi gisuñu ko fekk na boobu jox nañ ko bëkk néeg bi mu ne Alpha indi sëri Alpha indi sëri euh, El Hadj Omar daal di woo mbooloo mi nga xam ni ñoo ñëwoon indi si teraanga yooyu yëpp mu daal di tàllal sëri bi nga xamante ne moom la ko euh, soxna Fawa Diwele joxoon bi mu ko tàllalee xamante ne war a yeggali man sama mission kii moom sër bi moo ko nar a jur incha allah mu daan ne fii ba nga xamante ne mooy tund ngor dina nekk koo xamante ne dafay wasaare li nga xam ni moo di salaatul fatiha mhm. te bi ñu demee ba jëmmi jamono gis nañ ni mu demee ndax ki nga xam ni mooy soxna Fawade Wele si la am euh, suñu maam El Hadj kon mu nekk loo xamante ne ki ko ki ko prédiroon moo di El Hadj Omar comme ni ñu ko waxee woon mu nekk ci di ñëw nekk ndeyu daara ci fi nga xamante ne moo di daara El Hadj Sow El Hadj Sow boobu moom lañ tuddee Sidi Hadj Malick mm. fóotal xale yi di le di jël ay sërëm di ko dagg di ko ñawal xale yi ay yére mais di leen sàng bu seddeeg yooyu yëpp donc lépp loo xamante ne seen waajur yi waroon na leen ko féetee ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir daara jooju soxna le moo ngi leen ko doon moom leen ko doon defal donc nekkoon soxna soo xamante ne li mu gënoon a ràññeekule moo di ci wàllum jaamu yàlla ndax daanu ko woon booleeg dara liggéey boobu yëpp mu doon def da ci daan boole di jaamu yàlla di naafi la nekkoon soxna su sell soo xamante ne euh, frère ak njabootu ñi nga xamante ne ñoom la bokkal yëpp ak fi nga xamante ne moo di gaaya nga nga xamante ne moom la dëkk ñëpp ràññeelu ko si si si yiiwam si mbaaxam ci ci léppam moom soxna soo su nekk ko xamante ne mu sedd mooy euh, soxna Fawade Wele. alxuraan rek moo ko moo ko voilà loolu rek moo ko ñoroon ndax ah. sell gi mu sell mooy waral El Hadj Omar euh, daal di waxoon ni que hmm. soxna si mooy jur euh, ki nga xamante ne moo mën a wutu hmm. ndax sell mën nañ ni walu yàlla soxna su sellul wala su amul yenn jukko yi mënu koo jur kon doyoon na rek ci ñu waxtaanee ay ay karamaam ni rek hmm. doy na ndam mooy mooy wéyjuru Sidi Hadj Malick donc soxna soosu nag euh, dafa am euh, ni nga xamante ne noonu la meloon ci ay jikko yu rafet hmm. ci ay jaamu yàlla moom la nduróog ak ki nga xamante ne moo di soxna Mariama Bousso hmm. euh, ñu gën ko xamee ci turu soxna Jaara donc moom turam dëgg mooy soxna Mariama Bousso moom mu ngi gane àdduna 1833 moom comme soxna Fawade Wele ni mu bokkee fi nga xam ne moo di mu ngi nekk Fuuta moom tamit soxna Jaara fi nga xamante foofu la ganee àdduna mooy Gollare moom tamit foofu ci biir Fuuta la nekk donc moom woy juróom wu jigéen mu ngi tudd euh, soxna astawaalo soxna astawaalo moom tamit jàngalekatu arxuraan la woon hmm. dañu daan wax ni moom euh, dafa daan jaamu yàlla ba nga xamante ne su daan naafi la kaamil bi si huit rakk la koy la koy la koy naafi la ci ay jigéen te soxna astawaalo Euh, dund na 138 ans. macha allah muy wéyjuru soxna jaara nekkoon nekkoon soxna soo xamante ne euh, dégg naa boo ko gisaan sax doo ko ñeme ndax rigueur bi mu àndaloon jàllaabe yu góor yi di sol moom la daan sol nekk ci daara ji daanaka mag ñu bëri moom moo leen jàngale. xam ne jàngalekat. jàngalekatu alxuraan la voilà donc moom ak Serigne bu Bousso. Mm-hmm. muy wéyjuru soxna jaara bu góor. Mm-hmm. ñu koy wooye ma Bousso. Mm-hmm. ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk ay jàngalekatu alxuraan lañ. donc ñoom ñaar ñoom ñoo jàngal soxna jaara alxuraan. soxna jaara euh, laataa muy dem kër borom këram fekk na mu mokkal alxuraan donc 14 ans si la fekk na moom wàcce na alxuraan fukki at ak ñeent fukki at ak ñeent ba bind kaamil hmm. donc moom laataa muy am 19 ans wala boog bu mu amee 19 ans hmm. fekk na lépp luy luy xam-xam mhm. soxna jaara dajale na ko nga xamante ne mu ko amee ci diggante woy juróom bu góor ak woy juróom bu jigéen mhm. donc ñoom ñaar ñoo ko jàngal alxuraan demul jàngee fen ñoom woy juróom bu góor mu ngi bokk ci askanu mbusoobe nga xam ni daanaka borom xam-xam yu bëri ci ci mbusoobe googu la ñu jugee mhm. donc soxna jaara dundam yépp euh, lim ko doon def mooy euh, jaamu yàlla julli jàng alxuraan surtout léegi nag soxna jaara moom euh, ci ci ni nga xamante ne noonu la ràññeekoo ci bi muy nekk tout tànk si jaamu yàlla beeg yooyu dafa am benn soxna soo xamante ne dafa wóllëre woon ak woy juróom wu jigéen moom soxna astawaalo dafa amoon benn euh, wóllëreem boo xamante ne dañ koy wax soxna Anta Ndiaye mooy woy juru maam Cheikh moom ak soxna astawaalo muy wéy juru soxna jaara dañu nekkoon ay xarit ñoom seen xarit bi ni ñu doon def mooy dañuy ñëw daje suñu dajee ñuy jàng kaamil bi kii bu jëlee xaaju kaw kii jël xaaju suuf beneen yoon kii jël xaaju suuf kee jël xaaju kaw noonu lañ daan def léegi soxna antajaay bu ñëwaan ci kër gi dafa daan bàyyi xel soxna jaara gi soxna jaara ni mu nekkee tuut tànk ba pare diine rek ñor ko mu xam ni moom kat ñu jëlee soxna jaara bi boole ko ak Mamoor Anta Sali euh, yàlla mën na cee def xéewal ñu am ay njaboot gu barkeel soxna Anta Ndiaye daal di koy proposé ki nga xamante ne moo di soxna Asta Waalo mi wayjuru soxna jaara ne ko man de su ma sañoon mu dem si kër Mamoor Anta Sali après wayjuru soxna jaara xamal ko ne ko gëw ma ni jaara mii de euh, gëw ma ni ay wàllum sëy yooyu nekk na ci boppam léegi mu ne moom nañ ko bàyyee mu nekk ak soxna jaara mu mu mu seetlu ko léegi soxna Anta Ndiaye daal di euh, fanaan ak ki nga xam ni moo di soxna jaara léegi mu ne day tëdd mel ni kuy nelaw nelawlu comme ça mu xool soxna jaara moom guddi gi nu muy def soxna jaara tamit ne day bàyyi soxna si su nelawee tuuti moom tam mu yolleeku daal di jël téeréem soxna si ne comme boobu ku nekkaa ngi xaar sa morom soxna si ne xaaral mu forcé nelaw donc soxna asta soxna soxna Anta Ndiaye bi nga xamante ne commencé na mel ni kuy for bët soxna jaara daal di jug daal di jël kaaminam commencé di jàng léegi soxna soxna Anta Ndiaye daal di jug ñoom ñaar ñu séddoo kaamin bi di ko jàng bi ñu koy jàng ba benn ba ñu pare euh, ñu julli fajar après soxna soxna Anta Ndiaye daal di wax ak soxna jaara ne ko dama buggoon de nga ñëw ñu dem kër Mamor Anta Sali mu nekk sa borom kër léegi soxna Anta sa soxna jaara ne ko ndax sëñ bi koo xam ne la dafa dafa dafa jàng alxuraan mu ne ko waaw kooku borom daara la donc soxna jaara ne njort naa ne dinañu war a mën a def pour wax la rek fi nga xamante ne foofu la tegoon jaamu yàlla ak foofu la foofu la tegoon li nga xamante ne moo di alxuraan mhm. donc soxna jaara bi muy ñëw ci kër gi moo ngi nekkoon euh, ñetteel mais bi mu ñëwee mu ngi fa fekk ku ñuy wax soxna Anta Ndiaye comme ni ma la wax ak soxna Faat Issa mais bi mu ñëwee jàppee jàppewul ñooñu ay wujj dafa leen jàppee comme ay wayjur ndaxte ñooñu dañu ay wóllëre wayjuram lañ mais daanaka ñooñu dañoo maase ak wayjuram wu jigéen donc bi mu ñëwee dafa leen jàppee ay wayjur ndax dañu doon dañuy nettali histoire kafe bi soxna jaara dafa jël bi nga xam ni euh, matt manqué na dafa jël euh, armoire am mm-hmm. daal di koy xar mm-hmm. jël ko pour tàngal ci café biñ ko laajee lool lan moo tax mu wax loolu mu ne li tax mu mu xar ko moo ni dafa ne dafa ne euh, wujjami ne leen su fekkee kafe gi dañ ko war a tàngal euh, mu yéex seen borom kër dafay dafa dafa mën naa mer te meru borom kër baaxul ci euh, li nga xamante ne mooy jigéen buy sëy donc mu nekk koo xamante ne ku yéeme woon la mm. euh, ki nga xamante ne moo di Serigne Bassirou bind na ci livre Minanul Baaxil Xadim ay ay ay jikko yu rafet yoo xamante ne soxna jaara da koo amoon di wax ni liggéey bi nga xam ni moom la daan def ci biir kër gi yëpp moom soxna jaara du ko booleek dëkk ak li nga xam ne moo di woor da koy boole maanaam day woor di liggéey la yéeg yooyu yëpp donc jikko yu rafet yi nga am li mu amoon ak euh, li nga xam ne mooy jaamu yàllam looloo ko jox turu jaariyatullaahi ndax mhm. loolu mooy la voisine de Dieu ndax ndax Serigne Touba mu ngi wax euh, doomam Serigne Bassirou ne ko boo gisee ma teel a tàmm la mooy di sama waajur wu jigéen moo ma ci teel a nàmpatal ndax nee na soxna jaara da ko doon wax ne ko euh, moom Serigne Touba nag teel a tàmm taxawaayu guddi ndax góor yàlla yi fa la ñu rawantee donc Serigne Touba di ko nettali ki nga xamante ne moo di Serigne Massamba ne ko man dama teel a tàmm naa fi la ndax sama jur bu jigéen donc jigéen yu yi voilà ñooy xiirtal seen i borom kër ak seen i njaboot sax ci diine ci diine dëgg la dëgg la ndax ndax ndax moom loolu loolu dafa nekk loo xam ne moom ci la juddu ñu nàmpatal ko si parce que xam nga koo xamante ne dañ lay wax ni 14 ans Pape Cheikh jàng na alxuraan wàcce ko ba bind kaamil laataa muy am 19 ans lépp luy xeetu xam ci diine mu peeg ko kon xam nga kooku koo xamante ne la ku ku yéeme woon la macha allah te soxna jaara euh, dafa dafa nekkoon ku soxna su yéeme soo xamante ne sooy sooy seetlu suñ lay nettali histoire Serigne Touba jaaram ci géej géej bi mu ñëwee fi dakaar euh, chambre bu xat bi ñu ko dugaloon ak jafe-jafe mu si am Serigne tubaa mu ngi nettali ne dafa am ñaari ràkk yu mu fa julli mu metti woon trop mu ne benn ràkk bi mu ngi si doon mu ngi ci tari euh, Baqara beneen bi Ali Imran mais nee na bi muy julli jafe-jafe yi taroon na ba xam ni nee jaara da koo feeñu ci néeg boobu. ngir defal ko. Mm. ba pare donc euh, digganteem ak maam Cheikh Anta Gaawaan du hasard. non non du hasard parce que ñoom ñëpp euh, dafa nekkoon loo xamante ne dañ ko dañ ko fekkee. Mm. Euh, Serigne Touba dafa leen doon nettali taarix yi lépp lu mu lu mu lu mu am parce que loolu moom moo ngi ko dund ak soxna soxna jaara mais dafa génne baaxe ko baaxe ko ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy ñooy mbokk taalibe yi ñu xam ko ba pare euh, Serigne Jéeri daan Sugu ba tey Serigne Touba mu ngi koy nettali Serigne Massamba ne ko euh, bi nga xam ni Serigne Jéeri Waadaan Sugu génn na àdduna 1922 léegi Serigne Jéeri Waadaan biñ koy jullee Serigne Touba dafa wax ki nga xamante ne moo waroon dem euh, dem jiite julli gi mu koy wax ne ko boo ñëwee ba ci ñaareeru ràkk bi ñaareeru kàbbar bi astafurlaa na nga ne tekk ndax soxna jaara xamal na ma ne ma dina ñëw teewe si julli gi mm. ndax lan parce que Serigne nee na soxna jaara dafa amoon cofeel ci Serigne Jéeri Waadaan Sugu mm. kon pour wan la rek ne la dafa nekkoon koo xamante ne ku yéeme la woon Pape Cheikh ba pare loolu yëpp li ko si gën a may mooy mu fonk arxuraan fonk diine ba pare foo fonk boroom këram ndax boo seetloo tey jii boo demee Poroxaan teen bi nga xamante ne si la nit ñi di di root teen boobu soxna jaara moo doon utali ndox ki nga xam ne mooy borom këram mhm. di ko utal ndox yàlla li muy def mu dugg ci biir teen bi bi mu duggee ci biir teen bi mamoor Anta Sali lu mu wax teen boobu li ma leer ba leer ki ci dugg jaara la dem leen ngeen génne ko bi ñu ko génnee mu xaw a am ay xoos-xoos ci yaram bi léegi euh, Mamor antasari ne teen bi de xaw ma kan de nit sax de waaye pittax sax su si duggatee day am ngëneel mhm. mu wax loolu voilà moo tax nit yi di fa dem da ngay gis ñoo xamante ne mënuñu am doom mënuñu def dara dañuy dem euh, teen ba fa la ñuy nekk di ran ba pare poroxaan nekk dëkk bu yéeme xam nga poroxaan tur bi euh, li lu muy signifier mooy suuf su nangu dugub donc soxna jaar dañu wax ni dafa amoon kerse sax laaj Mamor Anta Sali li nga xam ne mooy dépense ndax yërëmoon ko ah. donc dafa doon am toolu dugubam moom di jël di ko jox ba pare euh, sëriñ sëriñ sëriñ Basiru mu ngi wax ni Touba nee na poroxaan ku fa ku fa ñëw fekk ma fa man Serigne tubaa wala boo ma fa fekkul boo fa toogee ab diir man ma fekk la fa. pour wane rek moom ni nga xamante ne moom la fonkee woon poroxaan moom la fonkee woon soxna jaara ndax bi muy nekk sax résidence surveillée moom Serigne tubaa mag ñi nga xam ne ñoo daan ñëw di ko fekk Serigne Baarataal Fetto ñoom ñëpp bu ñu ñëwaan ku ci nekk rek dafa leen dafa daan seetlu saalum saalum yi ni ñu daan waxee. ku si waxee waxu Saalum Saalum rek mu ne la naka poroxaat naka soxna si maanaam di di di fi nga xam ni foofu la woy juróom foofu la woy juróom tëdd waral mu joxoon ndigal ba xam ni ñu commencé di toppatoo barab ba ba mu indi ñu commencé def màggalu poroxaan 52 léegi kon pour wax la rek ne la soxna su soxna su yéeme woon la li ko mayoon loolu yëpp mooy jaamu yàlla bëgg arxuraan bëgg sunna euh, bëgg li nga xamante ne moo di diine voilà oustaz yaa ngi xool euh, euh, Mariam macha allah ak ak ak ak naka laa ko woon mu ngi koy xool ak euh, ak euh, ak ak admiration voilà comme beaucoup de téléspectateurs moo tax gëstu rek am solo euh, xam-xam moom defe naa boo ci bëggee tab bi da ngay gëstu et ça se que gëstu bi am na solo jarul sax reportage di nga toog expliqué doy nanu Bambaay Maodo Maodoy bamb ci mbokk waaye Bambaay Maodo Maodoy Bamba ci jikko yi seeni waajur yi jigéen yi nuro wallaahi alaaj Pape wallaahi moom tey moom tey ku déglu Marianne dina am loo tuuti mm-hmm. ndax bi mu duggee ci soxna Fawad Wele euh, ñi mu koy expliqué noonu di wax wax ju am solo mm-hmm. muy wax muy muy loo xam ne lu mu gëstu la mm-hmm. du waxantu gis nga la sama mboxoon ni jamono bi li ko yàq mooy ki xamul te xamul ni xamul nga xamul lañ ko ni xamoo nee na kooku lu yàq mooma wa min ajabil ashyaa'i annaka la tadri wa annaka la tadri bi annaka la tadri dara boo koy boo ci nekkee da nga ciy sonn pour wax ci lu mën a jëriñ nit ñi waaye waxantu ak euh, tappalaatu loolu baaxul boo koy déglu nga xam ne daf ko gëstu ndax faawaat euh, daramaan wele mi ko jur Bakary wele moo ko jur ma neen wax na ko léegi ñu war ñu naan Bakary ak daramaan euh, moom faawaat da nekkoon jigéen joo xam ne jigéen ju yéeme te jéggi dayoo la waaw benn waxoon naa la ko benn bis benn góor ca Saalum dafa koy woo jigéenu dëkk bi ne gàcceel ngeen ma ñu ne ko nu ñu la gàcceelee mu ni am na benn leer bu doon war dëkk bi pour xool jan jigéen moo ko fi war a jur leer ga nag dellu na parce que gisul jigéen ju ko war a jur delluwaat na ndax tànnal boppam ndey ji ko war a jur alaaj baba nga xool faawaat ñi mu góorgóorloo ci wéetal yàlla mm-hmm. ba seexu toll ci orefonde ne fóota ñu ni ko taal mu ni fóota ñu ni ko taal mu ni fii ma yem ci tariixa bi ba ca doj bu mag wala may seen ca ndox ma tamay doju ngor lépp dina weesaaroo di ay mbalaani wasifa di naasiril xaq bil xaqi te doomu borom sër bi moo koy àggale mooy Seydil Hadj Malick comme ni ko ma daan waxee mm. nga nga génn ci Hadj Malick moom tabaarakallaahu ni mu ñëwee nekk sauvetage waaye nga xool soxna jaaratullaahi mm-hmm. nga xam ne Mariane wax na ni mu tudd mooy soxna Mariama Bousso waaye dem jaara jaaratullaahi mooy dëkkaale yàlla mm-hmm. mm-hmm. nga xam ne kon moom musul tàqali ko borom bi subhaanahu wa dem ba yàlla boole ko ci gaayam yi ndax yàlla nee na am na ci sama gaañ ñoo xam ne lu ñu wax ma inna li lay xaw mun isa araadu araadallah ah. ñu ni ñan la mu ñu waxu xaw mu ñooña nag mooy gaa yi nga xam ne ñoo wéetal borom bi subhanahu wa taala mooy gaa yi yàlla yi mooy gaa yi yàlla yi hmm. waaw soxna jaara nag yàlla séddee ko ca ñooña ah. ndax wéetal ga yàlla bëggam nga alquran bëgg fonkam nga borom këram hmm. ndax diwa nga nar a dem loolu yaay moo koy liggéey hmm. boo xoolee li mu bëgg bëgg alquran te fonkul borom këram munul am ku mel ni Cheikhul Khadim waaw lu mu bëgg bëgg alquran di naafi fanaanee naafi la fanaanee jàng alquran te bi ko yóbboo ci kër pour mu jaamu yàlla ci borom këram euh, jaamuwul yàlla ci borom këram mënul am ku mel ni Cheikh El Khadim kon soxna Jaara la jaamu yàlla ngay foor mm. euh, fonk borom këram jaamu borom këram mm. liggéeyal borom këram mm. moo tax mu am ku mel ni Cheikh El Khadim alaaj Paap tey daal yaakaar naa kuy jigéen mm-hmm. war na yokk góorgóorloom ah, ci yiw ah, ah. war na yokk góorgóorloom ci sell war na yokk góorgóorloom ci gën a bàyyi xel yàlla mm-hmm. mais war na yokk gër góorgóorloom gën a bàyyi xel et puis et puis jigéen bu yiw dafa rafet gis nga àjjuma yenn saa yi ci yenn bërëb yi di da nga leen di sopp euh, ci taar ci yiw ci rafetaay ci téye kurus ci xeeñ neex c'est c'est c'est magnifique te koo ci gis rek sa xel day dem ci euh, digle jigéen yu sell yi Marianne di waxtaane boobu ba alaaj pap bi ngi doon yiw dafa daal xel alaaj pap mm. sell dafa daal xel mm-hmm. xam nga boo yiwee sa xel dafay dem mbedd mu la neex jaar mm-hmm. yenn saa yi nga sol loo xam ne di nga dajek koo xam ne sa kilifa mm. da nga koy làqatu mm. loolu loolu wala nga dugg ci barab am naa ci benn maire boo xam ne moom daa mel ni ku ñu seexal man dama koy làqatu gis nga yiw rek mère Soukayna Diop moom pour moom fu mu toog te waxtaanewul suñu boroom ak jullil deel julli deel woor deel def lii daa mel ni ko ñu seexal waagu ñaa xam nañ ko leer laa leen wax man dama koy làqatu léegi dafa am benn jigéen bu baax bu ñuy wax surtout Seydina Mohamed la bu ñuy wax bu ñuy wax Nafisa gis nga laaj Pape Nafisa mbaaxam jéggi woon na dayow jéggi dayow koo xam ne mboolem wëllu yi kenn ku ci nekk bàyyi na ko xel war a waykatu arab boo waxoon ku ne ko yaa ci mbaax li leen wuute yéen ñaar mooy li mu nekk yonantu rek mooy am na ci jigéen ñoo xam ne alaaj Pape dañuy dox fa ni ni góor gi suñu Ahmed Yaarut daan na wax ni soxna Roqee Njaay bu alaaj Malick euh, boo ko fekkee xadaratul ilaahi day bëmm comme gaynde si bi comme nga xam ne am na ci jigéen ñi ñoo xam ne li li ngay dégg wëliyu ñu naan ii di wëliyu la noonee noonee la amee ay wëliyatu ni mu amee woon ay saxaabi yu noonee la amee woon ay saxaabiyaat jigéen ñoo xam ne ay jàmbaar yi fëkk tëdd lañu euh, dañ daan dem xare xare lu jaasiyee bari poussière ba jug daawul tax jigéen ñi dellu ginnaaw ndax teel a bëgg yàlla teel a bëgg lislaam teel a doon jàmbaar mais teel a xam ne adduna bi kat du sax waay soxna Jaaratullaahi liggéeyam bi li Marianne nettali fi mu jaar li mu def lépp fanweeri at ak ñett dong la dund ah xam nga xam nga loolu bariwul waaye liggéey na liggéeyu daan toog sax moom soxna Jaar moom maam Fawade ci mm-hmm. ba fekk fa dojoo toog fa mm-hmm. nga xam ne yàlla ci ay nitam yi da ci am ñoo xam ne ay ay wax nañu ni Fawade mosuñu gis cëram waaw mosuñu gis cëram mhm. lu mu tàng tàng ñuy dem ca dex ga mhm. fële lay toog ca doxo sa xel day ñëw ci mam ko mëndooy mi ngi noonu mi ngi <laughs> waaw marraine wax ko kii ko jëkk denc mi ngi <laughs> tudd Babacar Ñang moo jur Fanta Ñang Siré Maxtaar Fall jël ko am ak moom Abdou Boli Fall comme ni mu ko nettalee léegi ah. euh, Ousmane jël ko am moom Cheikh Sidil Hadji Malick mm. mag ñàngoo yal na yàlla fayal ñu leen waaw ay royukaay lañu mm. jigéen june war na leen roy waaye góor gu ne it nag tabaarkalla war na roy seeni doom yu tedd yooyu alaaj Pape Mariane jërëjëf mm. macha allah jërëjëf Mariane euh, looloo waral sax ñoom sooy set kenn ku ci nekk bëri ay turandoo euh, ba soxna jaara gis nga daara daara ji nga xam ni ñoom ñëpp ay soxna jaara lañ tudd kenn ku ci nekk day am turandoo euh, nga xamante ne boo demee fu mel ni fu mel ni Dagana par exemple euh, dañuy def chaque année gàmm goo xamante ne waa kër si démage Malick ñoo koy def mais soo ñëwee ba foofu faaw ala kulli xaar après nga nga dem gaaya pour pour dem ziyaare soxna si donc ñoom ñëpp dañuy dem ci seen ci seen rawdu yi ndax amaana loo fa ñaan yàlla yàlla may la ko ndax gis nga Serigne Bassirou dafa daan wax ni ni eh, ci raw du soxna jaara mu ne ku ñëwati ci raw du soxna jaara na nga jàng arxuraan wala nga jàng xasida nga jublu penku nga jox ko àddiya soxna si soo paree nga dem soow eh, boo fa taxawee nga ñaan sa soxla tebul ngott mu ne ndax loo fa ñaan yàlla yàlla may na ko ndax soxna si juboo na ceeg boromam mhm. te soo noonu ngay demee gaaya également di ñaan ci soxna ci raw du soxna soxna mam fawadd wele eh, di ko ñaanal yàlla mais di ñaan yàlla également ci barke ci seen barke ñoom donc ñu nekk ay soxna yu baax soxna yu yiw yoo xamante ne pap eh, yal ñu leen yàlla fayal amin amin amin te yàlla yàlla taas ñu ci seen i barke amin macha allah c'est vrai li moo tax ñuy wax ni eh, des fois man dama koy wax ni yàlla daf ñu beral loxo parce que daf ñu ba eh, daf ñu daf ñu daf ñu daf ñu baaxee ci dëkk bi ay ay ay ay ay ay nit yu yiiw ay jigéen yu yiiw ay góor ay góor yàlla yu yiiw loolu la laaj Pape Sénégal euh, yàlla daf def loo xam ni mhm. billaay gis na suñu xol yi bu ñu ko laabaloon yéenente yéenente jàmm ah. ñun kon réew mi tàkk nañ bu yàgg ah. Sénégal dem na feneen a laaj ah. ndax cër bi ñu yàlla cëralee gis nga yàlla bi yàlla bindee suuf yi suuf yëpp a yem waaye lay tax suuf yi gërante mooy euh, leeruk borom bi suba wa taala daara yay nekk ci suuf sa waaw mu ngi ah, noonu ah. nga xam fu ñuy jàngi alxuraan mm-hmm. mag ñi nga xam ni seeni lawraat dañ ko moo ñaale jàmm ci biir Sénégal mm-hmm. kon euh, sunu mag ñi yàlla defal nañu cër boo xam ne sunu Sénégal euh, li fi li mu li nu am fii euh, réew ak dëkk yu ko am bariwul mm-hmm. mooy ay jigéen ñu baax yi jigéen ñoo xam ne ñoo ñu liggéeyal sunu kàngam yi nga xam ni gis nga saxaar si départ ak oto yi départ jëm Tiwaawan nga ni du fa àgg xam yow yaa dul àgg saxaar oto yeeg saxaar yeeg avion yi départ kër maam limaamu laahi bu kunta seexu cene ba mhm. ah ñoom ñëpp ka leen liggéeyal mooy mhm. seen i wayjur kenn koo ci jàpp wayjurum bu jigéen rek mhm. nga xam ne mën na tukkal àddina alaaj allah mu ngoog Marianne ñu ngi lay gërëm bu baax euh, gëm-gëm replay bi ci youtube bi euh, slash tfm wala sax ci euh, page facebook bu gëm-gëm